أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عذابك ورسولك من الشيطان الرجيم ربنا اخرجك منهم وسلسلتهم وأعوذ بك رب أن يحضرون والطاه وهاب يا رزاق يا ملكي لبت وهب لي وارزقني بنا أنا تيخي أسلا عجلا بالوشي مع معمد حدا وكرم الدين لها كما يسجد وعي توبة واحمني وقني أذى الورى وتجب لي سماس كان لك السماء ولا أدي والهو بها مشاركا لي وشكونا أجب وسل بسم حسن لي محمد وتحلي بها بنا سواء كان وحنا waxmi waxmi xam na amiin ñu ngi siyaare ñëpp ci weeru tëdd wi waaye daal jëpp ak ku koy dégg rek ci adduna bi te ab jullit yàlla na yàlla na la fekke ak jàmm te ba koog yow nga nekk nekk koog yow kon fiiri xaabil fiiri xaabil kitaabillahi ma abil makarimi sayidi wa sanadi seyxi wu sanadi aram abdul xadim kon ñu ñëwaat ci beneen aaya boo xam ne sëñ bi firi woon na ko te firim yu sell yu yu solowu ya muy tey fi qawli taala yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum tum naa wax ji kooku nañ ko bàyyi ba maa ngi ci maa ngi bëgg a ñëw ci yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wa kunu ma sadiqin sëñ bi daal di wax ne qawluhu ittaqullah ay ittaqul xuruja mimma adxalakum fiihi wa duxula fi ma nahakum an nee na bu yàlla waxee ne ittaqullah nee na nee na jubluwaay ba mooy na ngeen na ngeen wattu génn ca fa ma leen dugal te mu digal ya na ngeen wattu dugg ca la ma leen tere leen wa tabaraka wa taala zaatun la tudriku zaatiyatul zaatiyatahu al uqul wala leen wa tabaraka wa taala zaatun la tudriku zaatiyatahu al uqul laysa kal ajraami wa zawaat fa yuttaqa kama yuttaqa al wuquuca ala al asad wa ma famma illa awaamirahu wa nawaahi mu ne su suñ boom de moom jëmmam ja mu ne su ko jot kenn mënut xam dëgg-dëgg ji jëmmam ja xel yi mënu ko mënu ko jot mënu koo peeg mukk ndax bukkut ak doñ ji suuf yi nga xam ne moo nekk ci asamaaw suñ suuf seeg sunu ak weeru biddiw yi ak jant bi lépp doñ ji suuf yooyu nekk nekk ci asamaaw ak jëmm wa zawaat ak jëmm yi pour yu taxaa ñu ñu koy fegu ni ko ñuy fegoo dal ci gaynde gaynde gaynde xam ne jëmm la ju joo mën a daw lamb daj ko mu ne wama famma illa awaamira li fi ne kay moom dara ne wufa lu may ay ndigalam kitaam rek mu ne nag wa aznadal ittiqaa ilayhi taala li xasfi l mudaafi l awal nee na nee na na dafa wéer fegu gi jëme ko ci yàlla ngir ne dafa asaf mu daaful awal ma lam lam jalaaf mu ne wa kunu wa qawluhu wa kunu ma saadiqin ay daaimi l iraad nee na nee na na ngeen saxoo di dumooyu andil manaax yi walif walif taame saakinina fi buyutil awaamiri dëkk ca këri ndigalam ya li anna sidqa huwa dawaamu al xaqi wa sabri aley mu ne dëgg mooy nga sax ci dëgg te muñ te muñ ca ku ne xam ne bu ñu waxee muñ mooy loolu métti moo xam ne métti neex la wala métti naqari waak suhu safaanu muñ ci dëgg nag safaan ba mooy atajaru mooy nga ñeme ñemelu wal inhimaaku fil baatili mooy nga nuur ci neen maal ilmi bi bil xaq ànd ak nga xam dëgg nag soo ko defee ah loolu dëri na moom faf xam suñ mee ne kon diggal waxad amaraka ayyuhal mu'minu bi dawaami moom day moom day moom day borom bi diggal na la yow aji gëm ji waxul muslim de aji gëm ki wóoru yàlla nangul ko nee na nee na nee na nee na digal na la nga sax maaman wasafahum bi sotq nga ànd ak ñi nga xam ne da leen a melal ci ne ñoom di woy dëggu lañ woy dëggu lañ ma saadiqin ñi liannahu tabaraka wa taala amara wa waada wa naha wa awaad suñu moom kat digle na teele na xuppe na tere na xuppe na ay amara bi taati mu ne mu ne li ci jublu mooy digle na topp wajjaha ilayhi ikraamahu mu daal di mu daal di jubale teraanga jëkk ca kay topp wa waadal mutiina mu daal di dël ñi nga xam ne ñooy topp athaabitiina ña sax fiiha ca lam lam leen digal isaalal ikraam nit dañu nekkat danaa leen jox teraanga ji danaa ko indi ci seen loxo kon mu njëkk ci des ko xam wa naha anil maasiyati mu tere mu daal di tere mooy wata wa jëxal iqaabu ilayha mu daal di nag mbugal nag daal di ñokket moom jëm ca jëm ca tere ya wa awaadal mutalabisiina biha usulil iqaab mu daal di ne nag nag xopp gaa yi nga xam ne ñoo takkoog tere ya di leen kat mbugal dana ñëw dana agsi ci ci ci ci yéen lil muqimina fiha ña mooy ñi nga xam ne dana dañ caa narganu wa nabbaha tabaraka wa taala ala annahu maal muttaqin moom daal di yee gaa yi yéen na ngeen xam ne man day way wattu yi tere yi maa ngi ànd ak ñoom di leen jàppale di di leen nar leen a xewale xewal naa leen fii waaye naa nar leen xewal tegal loolu alkooku yi moo moo ko ci dolli sëñ bi ne sëñ bi ne kon yàlla yee gaa yi way wattu tere yi bi xawlihi tabaraka wa taala inna inna allaha ma alladina taqaw walladina hum muxsinuun ay alladina ittaqul maxsiya sëñ bi ne mooy ñi nga xam ne li jur mooy ñi nga xam ne wattu nañu tere yi war kun ila ahliha ak ak di wéeru ci ñuñ ñooñ mooy yi wa axsanu biddawaami ala taa daal di rafetal nag ci sax ci topp yàlla ma ahliha nag way topp ya xam kon foofu kon am am na kon borom mooy yi bàyyi mooy bàyyi ànd ak koy mooy ànd ak rafetal ci topp ci sax ci topp ànd ak way topp ya loolu kon lu mat a baxel la ay maahum bi injaihim sëñ bi ne li liñ ci dugal mooy ànd ak ñoom ci musal leen min adabi ulayk ci mbugalu mooy kat ya duñ duñ duñ ca am wa taxalludi fi naami haulay ak sax ca xéewalu ngaay yi mooy way way topp ya mu ne mu ne sun boom nag daal di daal daal di leeral wax ne kat ñi nga xam ne ay jaamukat yàlla lañ suñu borom dana jubale teraanga ja ñi nga xam ne ren dañoo suñ bi xam ne wa sirru fi taalimihi al ibad bi tawji bi tawajjuhi al ikrami bi tawjihi al ikrama ila al awamir tawajjuhi al iqabi ila al manahi nga xam ne kat maanaa léegi suñu borom di yee jaam yi ni leen teraanga day dama ko lëkkaleeg ndigal yi wax mbugal ne ko demal dëkk ca tere ya annahu tabaraka wa taala ma kamali tanazzuhi an zulm su mboom ni mu kawee ni mu kawee ji tedd walif muy toon kenn law lam yuallimhum dalika la kaana duman feqi mu ne mu ne bu leen xamalutoon loolu mu leen kat mu dama lëkkale teranga yeeg ak ak ndigal yi lëkkale lëkkale lëkkale toroxtaange ji ak ak ak ak mooy yi kon suñ ko xutoon kon de kon loolu kon de daal di doon tuñaange ci àqam te suñu borom moom du tooñ mu ne ci loolu boo ko misaalee bi nisbati ila fadlihi wa karami suñu borom boo ko misaalee ci ci ci ngën la ak tëddngam la kon moom loolu kon moom moo tax mu leeral ko jaam ñi loolu kon lu mat a xam la xam ne kat ku ne ci tere nuur ca xam ne ne kon yaa ngi ci buntu mbugal kon nuur ci tedd nga ci ci baax yi jaa ngi nuur ci toolu tedd nga loolu alkuku yi moo ko ci dolli mu ne li ma asa an yafuta hada min anniam wala wala ma yalxaq dalika min a darar wala ma yalxaq dalika min a darar suñ bi ne kon ngir gaa yi xewal ba bañ leen a raw lor bañ leen a na dab wara suñ boom leeral leen wa dalika laa yaliqu bi karamil suñ moom loolu kon yooyu te te tëdd nga am ko ku ne dana dana la wax ne kat ah boo bëggee lu baax yoon waa gi nii soo bëggee lu bon safaan ba muy safaan ba yoon waa gi nii wala mu ne wala maa kammala taalimahu iyahum fi xaatayni ba mu tolee xamal gam leen xamal yëf yi ci baax ak bon axbarat tabaraka wa taala bi hidayatihim su moom daal ne nag xabaar ne leen kara man de maa leen di gindi fa qaala inna hadaynaahu su moom ne ay dalal naa li insaana tegtal nañ nit ka asabila ay sabila maarifatihi ma yarta ma yatarattabu alayhi min al ikrami ma yarxaqu bi fi'lihi al intiqaama mu ne ma suñ bam ne xamal naa jaam bi li nga xam ne mooy mooy dottiku wala mooy jóge ci ci def ndigal teraanga jigéey bàyyi ko ak def safaan ba fayu ga nga xam ne ne danaa ko fayu ci moom sëñ bi ne latifa am na sew-sew boo xam ne mat naa ba xel sëñ bi ne wal huda li kulli ma tadaa bihi li kulli ma ma ma tadaa bihi ila cheyin ma xayran aw aw charra nee na alhuda mooy lépp loo xamante ne gindikoo nañ ci jëm ci moom moo xam aw yiw la wala lor la ka hidaay it nafsi ila suu ndi bakkan di gindee boroom jëmi ko ci lu bon wasuu ila naar ak loo xam nee na it ak ak ni bon di yóbboo nit ci sawara wa hidaayatul hawa ak nit ni banneex di di gindee ilal dolaal ci réeral wala idraaru réeral ila naar ni mu gindee jëmee ci sawara hidayatu cheytaani ak gindik cheytaani ilal ixwa jëmee ci bew wal xawaayitu ila naar xawaayit bew tey di gindi nit jëmee ko ko ci sawara wa hidayatu dunia ilal xuróor adduna yi it ni muy gindee nit jëmee ko jëmee ko ci waru wal xuróoru ila naar waru gindi nit jëmee ko ci sawara maanaam maanaam gindi mooy te teg ci kaw yoon wax ne ba ko wàccu da nga àgg te ca loola alkooku yi nag moo moo ci dal loolu fa bi hada tafham maanaa ko qawlihi taala na ci suntuwaa dañu koon ci ñi ngay déggee waxi borom bi ne qul innahu hudallahi wal huda ni mu waxee ne kat na nga xam ne gindiku ga dëgg mooy gindiku yàlla ga yàlla yàlla kum gindiku rek kum gindi rek yaay gindiku ndax ndax sëñ bi ne ay laa huda xayri na mu ne déedéet du gindiku keneen ndax keneen mu ne noonu ko waxoon am na gindi yu bari yoo xam ne fa mu la fa mu la jëmee boo ko ak yàlla ko ulaayika yad'uuna ila naar wallahu yad'u ila jannati wal maxfirati bi idni boom nee na kon moom day moom ñooñu gaa yooyu dañ lay woo jëm sawara moom yàlla nag da lay woo jëm àjjana ak ndigal ci ndigalam mu ne kon Sëriñ Tuubaa daal ne bo bo dama an amana alayhi bil hidaaya lii suñu boom ba bopp ñu xewale leen ci ci gindi ci gindi ko imma shakiran moo mu ne suñu duwaan bi misali maa amar naa maa umir na bi moo xam ñu defe ci jëfe ndigal ya yëpp ñu digal wa waadana fi alahu al ikram nee na it ak lim ci dël ci teral mu tarki ma nahaana anhu ak ak bàyyi la lam ñu tere wa waadana min tarki hil inja moo mu daal ñuy wax ne kat képp koo xam ne dangaa bàyyi tere dangaa la musal wooy maa kafuran suñ bi ne bi tarki ma am umir na bi mooy ci bàyyi la lañ ñu tere waxtaay ma ma ma naxaana naa bi takk ma amarana bi waxtaay ma ma naxaana nee na nee na ci daal daal di sóobu ci li nga lim ñu tere ma naxaana anu ba bàyyi na gis al fariqayn su moom daal leeral fayug ñaari kuréel yi bi xaw lihi taala la in shakartum bimdifaali awaamiri bu ngeen bu ngeen ma sante ci jëfe ndigal yi tina bi manaahi ak mooy tan ko tere yi la si dannakum min ikraam yi wa in jaay daa leen dolli teraanga ak musal wala in kafatum bi tarkil awaamiri wa tikaabil manaahi su ngeen weddee nag weddee ci bàyyi tere yi di ñooxu ci bàyyi tere yi ci bàyyi ndigal yi di ñooxu tere yi inna inna adaabi almuadd lil kaafiri fii daaril xuluud mbugal mi nga xam ne dama ko dama ko waajale yéefar bi ci ci ci alaxira la shadid mbugal mu metti la kon mu ne ba ba leen ko xel laa yutaaqu li shiddatihi su suñ duwaane kenn du attanu ko ngir taram nga kalañ si ba musal ko waatinu ilayhi laa mu xarate faw mu àgg ci ci moom moom moom moom yëfal boobee moom may topp tere ya wa akadal at tabiina bi xawlihi taala suñu boom daal daal di gën a gën a gën a yokk loola ndëgër laay ci wax ne nabbi nabbi ibadiya inni ana alxafuur mooy su mu ne ay liman taaba minhum wa arada anil malahi rasulullah salaam nanga wax gaa yi di leen sama sama jaam yi di leen man day maay jégal jégal jégal kon ba suñ bi ne mooy ku ku dellu ci yàlla daal di du mooy yu tere yi la kooku lay waxal arrahim mu nga xamante ne kooka kooka mooy ki nga xam ne mooy yërëme ëllëg xéwal gum agsi ci yow ëllëg ëllëg muy muy alaxira ci moom dong mu la jóge du mën a jóge ci keneen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh